damay gëm gërëm président de la république dafa né Sénégal émergent té mu ngi def émergent dëgg ndax su jëlé projet bi indi ko ci départ euh, ci région Fatick dafa bëgg jigéne Fatick ak jeune Fatick ko ñu di ko rafetlu bu baax. may ñaan nak sama bokk jigéne euh, ñi nañ jëm japp ci liggéey ba ndax avantage Sénégal la jeune itam nañ jëm japp ci ndax mo gën immigration bi mo gën sacc bi mo gën viol yi. di gërëmal ci wa Prodac rek ndax projet bi moom si ministre la jeunesse la jógee kon ministre de jeunesse moo fi toogal xale yi kon nag su ko defee tey day jàppale xale yi ñu ngi koy remercier bu baax di wax di ko encourager nañ ci jàpp liggéey ndax nag euh, liggéey euh, dafa yombut yombut emploi dafa yombut emploi balaa nga mën am ay emploi foog nga am diplôme yu leer te comme nag yi fi dafa saturé su fekkee ne product bi ñëw na indi projet bi dañ ci war a jël ñëpp gis suñu bopp na jeunes yi fa département région Fatick yëpp muy trois départements yëpp nañ dem bokk ci liggéey bi jàpp ci ndax mën a suqaliku bu baax.